liñ ñu rawee mooy dañoo xam lu ñu xamul ñu war ñu koo xamal jeex na qul innama ana basharun mislukum yuha ilayya yàlla wax na yonent bi ne ko waxal nit ñi ne leen nit laa comme yéen damaa xam lu ngeen xamul ma di leen ko xamal mais nit laa mais léeg-léeg sa sëriñ ëpp nit benn waaye dafa ñëw neen waaw sëñ Iran di jooy <laughs> nit ñi ñoo naafeq ni ma la bëggee nangam nangam man yow laa bëgg li ngay liggéey ci réew mii xam naa bu la nangam ma di ko seetaan muy jooy ma ko ronkoñ xam ni yi ronkoñ kenn toggu ko baaxaluñ ko mënta togg attaaya tàngul ma ni ko góor gi nga baal ma kaay téye ci loxoom ba ci sama néeg mu weq bunt bi douche mi ubbeeku ma ne ko pax mi ku ko moom mu ne nii kaala ma ne ko dindil papa dañuy jàng ci daara ji maa moom douche bi maa moom pax mi maa moom palaat yi li may lekk ci palaat yi fii laa koy génne sas bii laay sango léegi may kan te ngaa jël yàlla yëkkati ko moom mi nga xam ne laa taqusu sinatun wala nawmun du gëmmintu du nelaw te lahu maa fi samaawaati wa maa fil ard lépp mooy borom ma ne ko jëlal yàlla bàyyi ma man duma dara su ma duggee ci douche bi lay xam ne du ma dara su may raxasoog sama càmmoñ laay xam ne moo uutu sama yaay mag laa kon mag mooy raxas boppam ndeyam dootu ko raxas su may lekk sama ndeyjoor moo uutu sama yaay sama yaay ma daan sexal tey maay sexal sama bopp góor gi nañ waxtaan boo amee soxla wax ma bu ma ko amul bàyyi la nga dem nit day am fayda man kenn mënu maa jey kenn na ko manul ku yor sa xaalis téye ko laa wax ku ko yor téye ko bu ma demee ba yëg ne danga may fooye ma jàmbure ci yow ñemewu maa bàyyi yàlla waaye damay jàmbure jàmbure kon sañ na ko dama jàmbure kon màggal gi bu ko yàlla indee jàmm la Xaadimu sol waxoon maa ngi dem su bis bi dellusee santale leen ma yàlla réel bis bi lool di commencé ci ganaar dem ba ci bëy dem ba ci xar dem ba ci nag dem ba ci gëléem lu ci waay am loj ko nga togg ko ba mu jaar yoon nga woo jaami yàlla yi ñu lekk ko ngeen yéeneel ma ci sant yàlla nekk sant yàlla Ablaay jëf la sëñ ñu ko jàngal man ganaaru kenn ma ne noonu man dëgg rek lay man sénégalais laa du ma par far farloowul du def lii la santaan yàlla dogal mu ñibbisi dem nga màggal mbay man dem naa fa su yoor yooree bu may defi bu may tourné ji émission mbedd mi yëpp nag yi dañuy jumki rek day fees nag yu ñu reen teg rek le sëriñ bi waxoon lañuy def togg ba mu neex ñu jox nit ñi dañuy lekk ba nit ñi suur ñu jël ñam yóbbu ci mbedd yi di teg mu ne yéeneen leen ma ko sant yàlla sant yàlla du wax jëf la muy togg ñam joxe bi may gàmmo gàmmo Thiès ma ak waa Thiès ci promenade bi génn góor daf ma fekk ma toog murit la mu nuyu ma ne ma Iran na nga def ma ne ko maa ngi fi mu ne ma sa maam Cheikh Ibra Fall xam nga lu mu ma ne ko déedéet mu ne ma dabe ndab sëñ Touba ni Cheikh Ibra Fall nee na ku bëgg a dab nitu yàlla yi del joxe ñam boo bëggee dab gaa dabe ndab toog di joxe kon màggal gante sëñ Tuubaa dafa wax ni zur tuhib wa in chattat bi ka daaru wa min dunihi sahlun wa awaaru laa yamna annaka bu'dun min ziyaaratihi inna al muhibba liman yahwaahu zawaaru ndooy xaadimu rasul ne ne fa ma tëdd daa sori moo tax doo doo kon soppoo ma ndax soppi fu soppeem ne war na ko jaral dog lu yoon wa naqadi naqari lu mu bëri suuf lu mu bëri bëri xur lum mu bëri bëri xeer lum donte rang ran bu métti la boo ma soppee booy ñëw doo yëg yooyu ndax man mi nga sopp ko sopp nag dangay dem seeti ki nga sopp li man yeex waaw zawaaru demal nga ziyaare ji ko kon bu yàlla dogalee màggal ñëw fu nit nekk ci àdduna na dem Tuubaa ziyaare ji mais ñun mooy sunu alal yabootu njabootu yonent bi la ñun ñuy seeni taalibi yonent bi suñu amee ñu mel noonu ci yonent bi dañ koy sante yàlla mais duñ ko parparloo jamais kon màggal gi <clears throat> loolu rek lañ ciy wax la ce des Tuubaa lañ koy waxee ndax ñun ñëpp dañuy dem bugaan ñëpp lay yebat ñii ne ci fii ñii ne Tuubaa waaye daal bi ci des nag kaay ma wax la ndooy ma wax lëf sooy ñëw Touba seet si Serigne Fata Mbacke doomu Serigne Baara Mbacke ti mu dëkk Thiès ngay dali këram yu baaleel dara jamono neexul ku nekk ngay dalal wutal loo ko jox soo ko mënta jox lu def màggalam jox ko lu def yow sa màggal mu téye ko mu wóor ko ni li mën dooy jox jënd na juróomi ganaar jënd na lu ko togg jënd na ay mburu kon participer na waaye dem na ngalañ ni Iran rek adduna bu tukki la kon kuy dem yóbbaaleel dara ka ngay dalal ka ngay daloo nga jox ko dara dara dara yooyu lañuy dajale muy dara ñu teral leen ci waaye dem gan duñ gan day indi sérieux am déet gis nga boo demee ci dalukaay yi koo gis toppatoowuñ ko rek daa toppatoowul bés bi waaw deful la ko war waaye ku def la la war am dal bu baax ndax yow nit nga kon waajal leen ñu ngeen di fekk lu waaye am na ko yóbbuwaale soo demee joxe ko ngir yàlla oto yi su yàlla dogalee màggal gi am oto yi nañu wàññi paas yi buñ mënta bañ a laaj paas ku mën a bañ a laaj paas nag jaayante koog yàlla ak jaamam bu baax boobu nga bañ a laaj paas jaayanti ko moom ma jox la ci tegtal maam Rawane Ngom cappaal daa bay ba nawet wàcc sëriñ Abdoy wax de nee na mu jéeri gerteem yëpp jël ko sotti ko ci gerte Cheikh Al Hadj Malick nee na Maodo da daan laaj nag ndax jaay ngeen. nee na nekk ne jaay naa traitant tel jaay naa traitant tel ba mu yegg ci maam rawaan mu ne ko rawaan jaay nga sa gerte mu ne ko mu ne ko kooko jaay mu ne ko Seydil Hadji maalik mu ne ko man ma gerte damay jaay mu ne ko jël naa sama gerte sotti sa gerte xool foo toll ci yàlla yàlla fayee ma noonee ci moom kii moo muus am de kii moo am xel sotti naa sama gerte sa gerte jaayante koog yow ci kanam yàlla noo toll ci yàlla na ma yàlla fayee noonu kon ku mën a ut sa oto yóbbuwaale nit ñi demal xaalis baax na mais am na bis boo xam ne ut yàlla gan ut ci xaalis na ñëpp dem Touba te oto yi daw ndànk nag bañ a jëkkante ku sonn joxal ko ku jël mënoo nelaw di dawal ndax da ngay seeti ku baax kon na ñëpp waaj bu baax ku mën a toggi ñam toggal ku mën a yóbbu ndox yóbbul ku mën galaas yóbbul ku mën boisson yóbbul lu waay mën na yóbbu ak koppar loo man rek na dem loolu màggal gi lool la laaj ay dem Touba ne fanaax rek ñu di la teral ba mu jën nga tàggoo di dem naan ñu jàng Fatiha ban Fatiha toppal fële nga naan Fatiha bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin